gémmañu kenn ci jaay kenn doole ci kenn ku bind ci ben dossier wala mu wax ci dossier bo xamné état bëggul woon mu siiw yu mel nonu motax ñuy ñaawlu article 80 mais article 80, il faut ñu fàttali ni protégé wul Macky Sall protégé wul Abdoulaye Wade protégé Abdou Diouf article 80, vingt protéger institution une république bo xamné ne Ousmane Sonko mon nako doon Khalifa Sall mën na ko doon. ëllëg Barthélemy Diaz mën na koo doon. kooku la ngay doon ëllëg tooguwaay boobu la ñuy protéger. c'est vrai. Euh, na kenn ku nekk jël boppam wala mu jël way juróom placé ko ci palaasu kàddu yi ñu teg ci kaw Macky Sall. pour àtt bi yomb. nit ki mun nga violent ci booy wax. mun nga am rigueur mun nga am caractère ci booy wax mun nga. tendre lool ci booy wax mais bul insulter nit c'est-à-dire que violence bi eggul foofu lu mën di am mënuñoo fexe ba du duñu génn njuumte ci biir kàddu sëñ Abdou Bara Dolly Mbacké man dafa dafa juum dafa juum man déglu naa vidéo bi dégluwaat ko mais dafa juum pour nga mën ko pour nga mën ko atte ci atte bu maandu teef dama ni da ngay jël sa bopp yow wala nga jël sa jur bu góor nga teg ko ci place ki mu doon wax noonu yooyu nag bu nit juumee dañuy def póotum potum biir nekk mun nañu def médiation mun nañu calmer fi yëf toll mais nañu éviter ci ay kaddu loo xam dafay viser nit ki directement bu fekkee ay waxu réseaux sociaux ak yu mel noonu garaawul mm-hmm. garaaw na sax waaye mën nañu ko toléré mais boo nekkee kilifa jiite mouvement wala parti politique nekk député à l'Assemblée nationale di eb institution mm-hmm institution bi la permettre ñu ni yow kenn du la japp fi ak levé sa immunité parlementaire institution mhm. parce que sénégalais est comme tout le monde citoyen le comme tout le monde. Mhm. institution bi protège, protéger ba tax ñu ni kenn waru ko institution bobu bi ko la kaw présidence de la république. Mhm. les qui incarné mën nga. attaquer gestion am mun nga attaque liggéeyam mun nga attaque démarche bu mu nekk projet bu mu wax mu wax nga ni gëmoo ko mu wax nga interpréter ko bu la neexee. Mhm. mais vie privée ci yenn yoo xamante ni bi ma ne la ku ko attee ci dëgg rek jël sa bopp teg ko ci palaasu kàdd yooyu yow ñu féetale la ko. Mhm. mu def la ni mu def njiit réew mi. yàlla dëgg rek la bëgg. mu goog euh, waaye ba tey article quatre-vingt boo xamante ne Léopold Blata cas bii sax yàgg nañoo sàkku ci ñu supprimer ko ndax ñu bari nee nañu euh, dëppoowul ak euh, démocratie article boo xam ne fourre-tout la nekk ca biir dafa bari te limite yi itam xamuñu ko. waaw xaw ma lu tax nag ñu instauré article 80 parce que amoon na ay précédent yoo xam ne dafa amoon. Mm-hmm. yoo xam ne ni article 80 dafa wodd ci ay ndodd nit. Mm-hmm. mais tout simplement ma may wax démocratie la ñu nekk te démocratie suñu falee ab président comme nu ko Alaaji waxee. Mm-hmm. institution la. président bu nekkee institution ci mbooloo mu takk gu mel nga taxaw di wax ay yoo xam ne ni wax yu tegginewul comme ni mu ko waxee rek soo ko jëloon sa bopp nga teg ko à place est-ce que di nga ko waxee noonu wala su doonoon sa wéy jur wala mu doon leneen ku la jege. doo ko waxee noonu mais wax yi dafa tegginewul ba nga xam ne ni finalement sax dafa am ñoo xam ne ni douleur lañ ci ressentir mais man sama jëmi bopp su ma sañoon su ma sañoon président de la république ci boppam comme moom moo njaboote ñëpp wax dëgg ak yàlla mën na koo jéggal mhm. mu baal ko ci li nga xam ne ni moom la wax su boobaa dañuy wane ne dina wane benn aspect de grandeur mhm. tey jii moom rek moo mun a jël décision mu ne lim ma wax nii baal naa ko jéggal naa ko léegi article quatre-vingt bi ñu jël ko tegee ko wet mhm. mais parce que tout simplement dafa def erreur parce que tamit nga taxaw ci kanam mbooloo nit ñi di la tàccu di la wax xam nga loolu mun na laa yóbbu nga wax loo xam ne ne buggu buggoo ko woon wax te man moom dama ko xam parce que mhm. ba may nekk Touba cinq ans ya ma fa def yëpp am ko doon fréquenté du woon nit boo xam ne ne waxam day tàggatémbe wala day wax yoo xam ne yu ñaaw xaw ma nag lu ko yóbbu ba mu baras noonu mhm. de la république dañ ko ñaan mu ko euh, article 80 vingt ci mm-hmm. mu def acte de grandeur en tant que président de la république jéggal Mhm. Léopold dañuy taxaw nag ci discours way politique yi ñuy nemmeeku ni fitna daf ci euh, takkee fan yi bu euh, baax a baax ki la di Momar Thiam di docteur ci wàllub euh, communication politique moom la mu xamle mooy ñenn ci way politique yi nga xamante ne xeetu discours yooyu lee la ñuy def li ñu ñàkk mooy wàllub morale citoyenne muy xamle ni kon ay kàddu yu ñagas du mës a remplacer débat boo xamante ne ci tekk ak dal la waaye itam bu am xam-xam muy ci rax dolli itam ni ñi nga xamante ne ba tey ñoom ñooy def li ni mel dañoo maîtriser wul li ñuy def maanaam wàllu politique dañoo jékki-jékki rek juux ci biir ñoo ànd ceeg docteur Momar cam mi sekku po waxtaan ak noo ko ba kayu ko dans les années 2000 avec Souleymane Jules quand Wade était au pouvoir ay d'éminents personnalités politiques yoo xam ne seen wax dafa xajam je pense à Moustapha Cissé Lo gis nañ ko fi tey un membre éminent de l'opposition en plus député la ñu ci bari dañu détourné ci politique motax bo boo sax ñen ñi nga xamné xarañ nañ lool ci sen domaine du bëgg dugg ci politique parce dañ naan ni ñi ñuy defee politique dafa rafetul parce que di saga di invectiver di tout mal gis nañ ben waaj yo xamné ni mu ngi nek ci parti au pouvoir dafa né Ousmane Sonko dañ ko wara ray wax jooju rek dafa ñaw politicien professionnel la jël formé wu len ci dañ ci par infraction maanaam dafa mel par accident et malheureusement ñooñu ñu ci bari dañu nekk toute une génération boo xam réseaux sociaux parce que ci réseaux sociaux yi mënoo leen contrôler bu leen ñu créer blog di wax lu leen di kàddu yu ñagas yooyu lee ñu nemmeeku ci longu politique gi ñu bari ci askan wi ñoom itam dañu koy ñaawlu euh, ci mbedd bi dañuy faral di ko waxtaanee ñi tase ak suñu reporter ñoom euh, di sàkku ci way politique yi ñu xoolaat bu baax ni ñuy waxee ndax ñenn ci ndaw ñi dañu leen jàppe ay référence ñu euh, andi ci ak ñoom ci micro ajaratu Aïcha Ñing ñaawlu rek métti nañ bett nañu quoi ci les politiciens ñooy saaga ñooy wax yu ñaaw ñoom daal lu leen neex la ñuy waxee lu leen neex la def mun nañoo def euh, nekk di jaar su a nekk ay royukaay pour xale yi donc bu ñu nekkee di yëkkati yenn kàddu yi xale yi mën nañ dégg loolu ñu yaakaar ñoom tamit loolu yoon la mën nañ ko def loolu lu ko indi maanaam sabotage la rek def maa tey ah, xanaa ñu delluwaat seen tànk gannaaw rek ñu xam bu baax fu ñuy teg seen tànk. ku jóg def lu la neex. mais bu ñu doon teg loi yarin ku def lii ñu def la ko dina fi dañ Sénégal. réseaux sociaux joué na ci bu bu bu bëree bëri bëri. éducation de base bi joué na ci rôle bu bëree bëri parce que parent yi vraiment dañoo seetaan xale yi léegi. ñu jéem a juboo ñoom seen diggante ñu jàppoo ndax ñu mën a defar réew mi parce que ñoom ñoo nekk si kanam ëllëg xale yi si ñoom la ñuy roy tamit. mu ngoog Léopold kàddu yu ñagas fitna gu ñuy yee yoo xam ne askan wi itam wu ñu ko. man damaa jaaxle ci Sénégal parce que dafa mel ni tey jii pour nga politique il faut ngay saaga. Mhm. il faut ngay wax wax ju ñaaw. yenn yooyu parce que politique defe naa ne su ñu waxee démocratie démocratie mooy c'est la bienséance c'est-à-dire que nit ki da ngay yaru mhm. wan askan wi ne que yow véritablement am nga sagesse yow véritablement am nga cofeel ci nit ñi mhm. mais wax bi la ñu tënkul wax ji dañ ko jël léegi dañ koo tasa tasa tas ba pare ci ci lu ñaaw rek la ñuy exercer mhm. di nga gis nit ki léeg-léeg sax nga tuumaal ko léeg-léeg nga def manipulation nga wékk ci ndoddam loo xam ne ne nekkut mais loolu loolu mooy yàq démocratie

nga mu wóor la ne 16 millions de Sénégalais ñu ngi lay dégg ngay wax yenn wax yoo xam ne yu ñaaw yoo xam ne ne waruñu ko saa wax nit. Mhm. mais loolu nag moo ñu indi tey ji ba nga xam ne y a une dégradation sociétale. Mhm. tout est dégradé. parce que de part et d'autre dégradation là ba ci wax ji sax légui dafa dégradé. Mhm. Euh, Mansour ci ci ñenn ñi choisir euh, forme communication bobu ndax du du ñàkkub maîtriser langage politique wala ciune ci yenn débat yi ba nga xamné ne benn forme bobu rek lañu mëna jëfëndiko a la gëna fokk té ku mu ci doon ci ñom dafa laaj nga def recul parce que bo reculer am nga xam-xam. boo mën a bokkee ci géew bi. Mhm. ci débat boo xam ni di nga yey sénégalais yi. Mhm. coalition bu mu mën di doon ci ñoom am nañu projet de société. Mhm. muy programme bu ñu war a teg ci kanamu askan wi bu ñu def campagne. comme ni ñu ko defee woon ci campagne élection locale yi ñu génn. defe naa ni loolu moo ëpp solo am na ay kilifa yu jël kàddu ci ndaje yi mel noonu. dañuy décortiquer ci anam gi nga xam ne ci la juwa